salaamaaleykum mbokk internet ci dañu seetaan fii ci say Senego TV tey ñoo am mbégte dalal tey ji benn kàngam bu mag boo xam ne kenn du ko présenté ci wàllum bu muy liggéey muy wàllum développement social tey ñu am mbégte dalal monsieur Diop effectivement monsieur Aly Ane Diop monsieur Aly Ane Diop ñoo ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Antoine di kontaan trop ci dalal bi ngeen ma dalal di nuyu seen téléspectateurs yi euh, daañu waxtaan waxtaan wu am solo parce que waxtaan wi dafa jëm ci demande sociale. te loolu dafa sonal ñëpp waaw. Euh, monsieur ñuy rap monsieur Diop ñuy rappelé ne que vous êtes expert en développement social mun nga ñoo baaxee pour yenn internautes yeeg yenn sénégalais yi nga xam ne exactement xamuñ lan mooy loolu. en fait boo boo waxee expert en développement social man je suis plutôt spécialisé sur les questions d'économie sociale voilà de économie sociale maanaam dangay ngay def entrepreneuriat. résultat yi nga am moom ngay utiliser pour régler ay problèmes économiques euh, sociaux et environnementaux waaw ci loolu la spécialisé wu vraiment ci affaire emploi jeune ak entrepreneuriat féminin waaw sama xam-xam daal li ma ci yàlla may aslëf ci foofu laa ko jëmee. Mhm. waaw rappelé aussi que vous êtes auteur euh, ñaari livres yi nga xam ne am na dayo benn bi di chronique d'une rupture actée par le citoyen ordinaire beneen bi di le citoyen sénégalais de la demande sociale. mu nga ñëw ñëw revenir un peu ci premier livre bi di le citoyen sénégalais et la demande sociale. waaw parce que xam nga ñaari livre ni ñu koy toftala ci bi nga wax bu mujj bi sax boobu moom laa jëkk bind. mooy le citoyen sénégalais et la demande sociale. demande sociale maanaam daal mooy. Euh, li nga xamante ni moom leen nit ñi di wax muy seen jafe-jafe lépp lu jëm ci wàllu dund bi lépp lu jëm ci wàllu fajoo ak yooyu yëpp mënal sa bopp daal léegi nit ñi yoo xoo nañu loolu defe naa ni amul kenn koo xamante ni euh, loolu xamoo xamuloo ci dara ñun ñëpp xam na nii dëkk bi metti na nguur gi mi ngi def li mu man waaye ba tey yi fi des na waaw ah, loolu la loolu moom moo tax nag man ma bind ma bind téere bi bi ma bindee téere bi dama si indi li nga xamante moom laa gis ni mooy solution waaw mhm. ah, sama solution nag dafa di lenn loo xamante ni ñu mel ni man ñoo xamante ni nekk ñu ci wàllu politique bi dafa am benn taxawaay bu ñu war a am man sama taxawaay moom laa euh, moom laa wax foofu mooy lu ñuy wax citoyen bâtisseur xam nga citoyen sentinelle mu ngi fii ñi nga xamante ni mooy euh, ñoom Birahim Seck Forum Civil ñi nga xamante ni ñooy mon ami Fadel Baro ñi nga xam ñoom a nekk Y'en a marre et cetera ñoon ñu ngi taxaw soo amee loo xamante ni jarul yoon ci constitution bi ñoom ña ngi koy xeex mais li nga xam moo fi soxee dëgg. mooy koo xamante ni yàlla may na la dëgg-dëgg xam-xam ba noppi nga daal di nangu nii man damay dem ci gox goxaan ya fa mu méttee dëgg ma seet nu may ànd ak xale yi nga xamante ni ñoo fi nekk nag pour mën a ànd ak ñoom ci liggéey bi euh, Sénégal gën a jëm kanam Afrique gën a jëm kanam. kon léegi concept boobu may wax du citoyen bâtisseur. ni ma koy définir mooy nii mooy que citoyen bâtisseur euh, dafa dafa xarañ dafa am xam xol bi euh, euh, yore euh, nekk koo xamante ni dafa dafa laabiir ba noppi disponible pour askan wi waaw parce que xam nga su fekkee da nga am xam-xam ba pare laabiir ba pare amuloo jot doo mën a jàppale nit ñi ni mu ci waree. su fekkente ni euh, sa xol rafet na nga nekk ci wetu askan wi te yoroo xam-xam it doo leen mën a jariñ moo tax il faut nga xam il faut sa xol yaatu ba noppi nga am temps booy consacré askan wi pour que modèle bi mën a nekk modèle boo xamante dafay dafay dafay sotti. léegi nag ci modèle boobu nag dafa am lu ñuy wax écosystème boo xamante ni day ànd ak moom maanaam ci écosystème bi dafa am lu ñuy wax le citoyen euh, bâtisseur mooy li ma définir léegi. li ci tegu mooy le politique développeur politique développeur moom li ko intéressé mooy réew mi jëm kanam loolu rek moo ko intéressé xam nga politique politicienne jarul moo koy définir ñu ñëpp xam nañ moom mooy lan léegi politique développeur moom dafay dompat boppam sax ngir askan wi waaw kooku man moom lay soxla keneen ki mooy aspirant citoyen bâtisseur aspirant citoyen bâtisseur mooy xale yi nga xamante ni am nañu potentiel am nañu xam-xam mais amuñu expérience léegi ñetti profil yooyu bu ñu àndee rek mën gëm naa ni Sénégal dafay jóge ci situation bi mu nekk. Afrique dafay jóge ci situation bi mu nekk. loolu mooy yoon wi nga xamante ni man moom lay proposé. léegi nag citoyen bâtisseur bi kon lu muy def. dafay identifier ay projets yu am doole yoo xamante ni moom da koy bind daal si ànd ak ñooñu pour que politique développeur bi mën a dem wuti financement su wutee financement léegi citoyen bâtisseur bi ànd ak xale yi ñu dem liggéey liggéey ba alors là bu boobaa nag politique développeur moom mooy moom résultat am ah, comme que citoyen bâtisseur moom politique intéressé wu ko léegi politique euh, politique développeur rek lay mën a liggéeyal pour que askan wi mën ci gis boppam moom citoyen bâtisseur daal askan wi gis boppam loolu rek moom mooy moom mooy itam soxlawul feeñ télé euh, fenn soxlawul nit ñi naan këli mooy diw moom daal na askan wi euh, gis boppam ci li nga xamante ni moom moom lay def ci terrain bi. Mhm. Euh, ñu gis aussi que bu ñu lire premier kii bi livre bi di le citoyen sénégalais et la demande sociale da gis na yow da ngay proposer bu ñu analyser sa livre da ngay proposer benn rupture ngay proposer. rupture boobu noonu du euh, sa deuxième titre euh, livre bi chronique d'une rupture actée par le gis ne si ce yi da nga placer citoyen ordinaire bi au centre ces activités si activités yi xam ne par rapport au développement social. absolument parce que boo xoolee euh, le grand problème xam nga ñun consultant en stratégie su fekkente ni dañu war a saafara dala dañuy xool d'abord lan moo indi problème bi. parce que xam nga su fekkente ni gis nga gàncax boo xamante ni normalul boo xoolee euh, reen ya moom moo feebar. Mhm. donc léegi da ngay seet dëgg-dëgg feebar bi lan moo ko indi. Mhm. alors man bi ma defee sama diagnostic nag. Mhm. si la gis ni dafa am acteur boobu may définir nii loolu moom moo tumuranke ci dëkk bi. loolu mënu nu indil problème yi. parce que état bi moom day jël ñu am doole ci kaw. niveau gouvernement directeur yi ak yooyu yëpp daf leen di jël ñu nekk ñoo xamante ni bon seen xam-xam màcc na sa la ñuy def. mais léegi problème bi mooy courroie de transmission bi. waaw parce que xam nga dispositif yi ñoo ngi koy wax DER ngi fii trois fpt ADPME ak yooyu yëpp mais maintenant naka lañ koy war a utiliser ba loolu dem sa fa nga xamante ni fa la ko soxlaa dëgg. alors foofu laa gis nag nii foofu la sooxee moo tax ma ni man sama positionnement dafay daal di nekk ci niveau boobu waaw niveau bi muy nekk mooy niveau bi nga xamante ni foofu la ko nit ña soxlaa ñu mën a jot ci man. par exemple chaque fois da ngay gis ci élection yi nit ñi dañuy kaas ni euh, politiciens yi da nga leen di gis su fekkente ni élection am na mais bu élection bi jàllee moom da soo gis kenn. waaw alors là moom moo tax euh, acteur yu mel ni man ñun dañuy nekk en permanence ci côté population bi pour di leen mën a pousse euh, ca la nga xamante ni moom moo leen di jëmale kanam donc rupture bi mooy loolu mooy que ñun ñu commencé am ñun ñi nga xamante ni yàlla baaxe nañu tuuti xam-xam ñuy commencé di am position yoo xamante ni dañuy jegeñ askan wi dëggantaan parce que askan wi boo ko jegeñee dëggantaan di nga gën comprendre problème am et ci boobaa nga koy mën a dimbali pour euh, li nga xamante ni mooy jàngatam mën a mën a saafarawu mm-hmm. mais ñu gis ne dina mën a saafara mais par rapport ak suñu situation pays bi nga xam ne dafay xam benn marasme économique bi nga xam ne da dayoo na trop par rapport ak demande bi est ce que dina yomb satisfaire par rapport ak yenn yenn yi ngeen xam si yenn solution yi nga xam ne moom ngeen di jéem a proposer. non dina mu nekk parce boo xoolee. au niveau balance euh, la balance commerciale am na ay déséquilibres yoo xam nga ni Maroc chaque fois ci ci ci ci période nawet bi ñun dañ fay jëlee ay soble muy ñëw. Mhm. bo Brésil également pour euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk ci affaire euh, l'épouvandier affaire aviculture ak yooyu di defar euh, aliments yi ñoom lan say importé dafa bari. Mhm. mais yooyu yëpp bu fekkente ne am nañ benn organisation bi ci war parce que aspirant citoyen bâtisseur yooyu ma lay wax man xale yi. waxtaan na ak ñoom ay pare nañu am na ay ay jeunes leaders yu bëri yoo xamante ni pare nañu pour nekk ci ay cabinet de consulting junior pour mën a accompagner ñi nga xamante ni ñoom exprimer demande sociale bi. léew moo tax man li may faral di wax mooy gâteau bi dafa toll ni table bi actuellement Sénégal léegi système bi may wax bu ñu ko defee dañ koy yaatal ba mu toll ni salle bi xam nga bu boobaa dañu mën a séddoo xëccoo du am. waaw donc li nga xamante ni dañ ko daan importer kenn dootu ko importer. ceeb bi ñu daan importer tamit kenn dootu ko importé donc yooyu yëpp dafay doon valeur ajoutée pour Sénégal et loolu nag moom leen nit ñi di di di moo tax ci yi may wax nii euh, ñi nga xamante ni mooy les migrants de retour ku mel ni euh, AGIRAP association des jeunes rapatriés ñun ñëpp maa ngi maa ngi liggéey ak ñoom ci ay projet et li def comprendre nañ ko voilà donc élément yooyu yëpp bu fekkente ni daja dajale nañ leen mhm. et dañuy saafara su suñuy problème et d'ailleurs moo tax man am na benn euh, mouvement boo xamante ni intéressé na ma gis naa ku mel ni euh, Ablaye Sylla bu Ecotra moom euh, créé na benn mouvement boo xamante ni mu ngi ko mu ngi ko tuddee c'est cinquante préférence nationale moom li mu bëgg mooy que société nationaux yi les sociétés nationales di mën a am cinquante pour cent de la commande waaw yi nga xamante moom moom fi nekk xam yooyu yëpp su amee ak booleeg xale yi may war a accompagner ak ñi nekk ci gox-goxaan yi yooyu yëpp bu ñuy jël cinquante pour cent euh, ci commande état yi dem si ñoom mais loolu lépp euh, ndimbal la. voilà donc yooyu yëpp daal lay lay dajale pour mu nekk lenn loo xamante nii dafay dafay am solo. Mm-hmm. mais par rapport ak boo xoolee par rapport ak demande bi yow aussi boo gisee chaque jour am na ay nouveaux diplômés yu bees yuy génn boo génnee ci mbedd bi à majeure partie des jeunes liwu na yéen yow en tant que euh, expert yenn solution nga yaakaar ne buñ ko ci boo ko ci proposé mun na si génne yenn jeunes yooyu noonu. xam nga solution bi mooy solution bi ma wax nii man dama interpellé. Mhm. ñu yore sama profil. Mhm. ba pare nekk nu si politique bi. Mhm. Euh, ba pare nekk seen ruq. ñooñu lay jëmoo loolu moo tax gis nga lii pour ma def ko. man dama dama tayle sama bopp. pendant dix à quinze ans de bénévolat pour mën a def lii. pour am occasion tey nii comme ni ma nekkee fii ci seen caméra mën na wax gars yi ni leen solution am na mais il faut que ñun ñëpp qu'on se retrouve les retrousse parce que man à moi tout seul mënuma ko saafara moo tax par exemple comme noonu may wax man boo xoolee ci biir am na lu may expliquer parce que li may expliquer mooy le capital risque capital risque au niveau de la haute finance dafa am lu ñuy wax euh, les venture capitalistes ak les les business angels donc ñooñu ay acteurs yoo xam ne dañuy investir léegi loolu laay jël di xool su ma ko translaté euh, ci ci gox goxaan yi lan lay joxe loolu moo indi nii li ñuy wax business angel man loolu laa taxawee la sama bopp mu nekk citoyen bâtisseur léegi start-up yi ngay gis start yooyu les aspirants citoyens bâtisseurs xale yi am potentiel ñoom ñooy nekk ci yooyu muy nekk ay cabinet de consulting junior loolu nag global boobu nag moom moo tax ñuy mën a indi ay solution xam nga ci livre bu njëkk bi maa ngi interpellé Youssou Ndour daal di ni moom structure Birimam mais mën na servir de euh, fonds d'impact waa xam nga fonds d'impact euh, bi Birima mu fi woon nekkatu fi mais bu ko réactiver woon mu nekk un fonds d'impact Ablaye Sylla bi ma doon wax léegi gis naa ni sociale bu bari lay def loolu maa ngi koy invité mu mettre en place un fonds d'impact fonds d'impact benn fonds d'investissement la boo xamante ni dafay nara a destiné pour ñuy financer ay projets yi nga xamante ni mooy impacté ci demande sociale waa loolu moom moo am àddina fépp waaw actuellement ni noonu la monde bi di fonctionner et donc suñu duggee ci système yu demee noonu mais ñëpp dinañ si dugal seen loxo man dama am expertise ci wàllu euh, entrepreneuriat sociale mais keneen la mu man mooy defar ay euh, ay ay entrepôt réfrigéré kooku ñëw indi xam-xamam bu ko defee lépp li nga xamante ni bagage buy yàqu la ci ci côté fleuve ba tomate bi soble bi ak yooyu yëpp dootul yàqu léegi yu yëpp bu ñu ko dencee mango bi yàqu madd bi yàqu yooyu yëpp dans le sud ay côté Casamance mais loolu yëpp bu boobaa dootul yàqu et donc loolu lañ daan perte su ñëwee rek donc ça veut que daañu mën a régler suñu problème yëpp mais il faut que mu nekk équipe bu éco écosystème bi ma doon wax foofu la secret ba nekk maanaam le politique développeur le citoyen bâtisseur et les aspirants citoyens bâtisseurs mais du nekk rek benn euh, citoyen bâtisseur ay citoyen bâtisseur lay doon ay aspirants citoyen bâtisseur ak ay politique développeur léegi nag bu boobaa ñu daal dem set dispositif d'accompagnement wu état bi le guichet unique et yooyu yëpp ñu waxtaan waxtaanandoo pour man dem ci ay projet mm-hmm. effectivement mais aussi gis nañ ne da ngay liggéey ak jeunes yu bëri si région yu bëri si sous région bi yu bëri par rapport ak yenn projet yi nga xam ne yaa ngi koy lii di ko liggéey ak jeunes yooyu noonu yaa ngi ciy liggéey ak ñoom gis nañ ne phénomène boo jëlee par exemple exode bi boo seetloo temps yi am na benn exode bu xaw a am côté par rapport bu fekkee lay jakartement yi nga xam ne bu njëkk bay côté Kaolack la woon Sédhiou mais parce que jeunes yooyu yëpp par manque emploi ak yooyu dañoo def seen benn exode daw ci dakaar par rapport ak phénomène boobu noonu est-ce que yéen yéen yéen en tant que yow expert gis sentu woon ngeen ko loolu si phénomène boobu noonu. mais phénomène boobu c'est naturel xam nga nit fa muy amee teraange rek lay dem xam nga moo tax dama lay jox benn exemple concret euh, Tamba euh, dama fa am sama benn étudiant euh, bu ma doon jàngal fii université de Dakar mu ngi tudd Fili Mangasa Fili bi mu déggee li ma wax moom dafa comprendre li may wax moom mu dellu. bi mu dem bi mu delloo foofu toppatoo fa deux hectares daal di ànd ak yeneen i jeunes ñu ngi ciy liggéey ak seen yaay et actuellement abal na leen quinze hectares yoo xamante ni dañ si war a béy ci nawet bi donc voilà deux ans ñu ngi ciy liggéey donc loolu mooy expliquer le fonds d'impact su ma indee projet bu mel noonu mais dañuy financer pour ñoom ñu clôturer seeni kii daal di yokk seen ndox et à partir de ce moment moom fii lii mën na convaincre ay jeunes yu bëri pour ñu toog Tamba liggéey alors bu boobaa exode boobu dootul am. léegi bu ñu jëlee loolu boole ko ak affaire préférence nationale bi may wax par exemple ñu ni ñoom la ñuy bay mais genn wàll gi gendarmerie da koy jël. genn genn wàll gi sapeur dañ koy jël leneen lu dugg ci hôpital yi et cetera yu demee noonu mais système yu deme noonu moom moom lañ soxla fii ci ci ci réew mi. te am na ñoo xamante ni ñoo ngi dimbali mais nañuy dimbalee moo desee efficace parce que dañuy dimbali ci loo xamante ni du am retour léegi il faut que ndimbal nekk loo xamante ni day doon investissement buy jur dëgg-dëgg jur. léegi nag loolu dafay laaj organisation organisation boobu moo tax nag ci écosystème boobu doon wax ñun ñëpp ñu war a toog daal lan la ñuy def te man am na projet yu bari yoo xam te ni bind naa ko ba pare teg pour que ñu war a jublu ci loolu. beneen bi ma lay jox exemple am na beneen jeune bu tudd Sabali Sabali waa Kolda la moom moo doon président des amis de de la terre au niveau du CFPH de Cambérène centre de formation professionnelle horticole moom pare na ni ma ñu waxtaan léegi moom dellu dellu na dëkkam. dëkkam il a il a de la terre ñoom soxla nañ ku leen dimbali te dëkk ba amul électricité léegi moom mu ngi dellu na maanaam moom dañu war liggéey ci projet boobu pour ñu seet nan koy monter et si le politique développeur vient m'accompagner yu mel noonu li ma si yore du jeex du xaaj que sa soit à Sédhiou que sa soit à Kolda partout Bakel côté yëpp dem naa fa. il y a des jeunes qui ne qui qui qui n'attendent que ça ñoom pare nañu ni dañuy toog seen seen localité mais à condition que nguur gi ñëw uy si leen léegi nag le gros problème que j'ai c'est que politique développeur bi euh, je peine à trouver les vrais acteurs. mais est-ce que yow yow fexe nga jéem dem dem ñoom pour jéem leen rencontrer. mais loo loo lay parce que am na si ñoom am na si ci politiciens ñu xam li may def. ah monsieur Diop ça c'est intéressant mais il bouge pas moo tax dafa am koo xamante ni man foog ma euh, foog ma tiré ko chapeau moom mooy l'ambassadeur Fodé Seck ambassadeur Fodé sec depuis qu'il a compris loolu man ak moom ñoo ngi nekk ci ay monté ay dossiers et il est en de bouger pour mettre en, en contact avec des gens intéressants par rapport à la dynamique man vraiment je tiens à le féliciter voilà le type euh, le profil type du du, du politique développeur bi nga xamante ni man moom lay moom moom lay wax. waaw léegi nag bon ku mel ni euh, Ablaye également ma lii may gis muy jéem def nii c'est c'est intéressant donc je pense que voilà ñu mel noonu euh, buñ si jàppee dëggantaan léegi dëkk bi gën a naat. quand même moom à part moom amul yeneen yeneen yeneen yi nga xam ne ñoom aussi ñu ngi jéem a activer par exemple est-ce que ngeen xool avec ministre de la jeunesse et de l'emploi jéem nañ koo contacter pour voir. bon xam nga fii jot ci yenn kilifa yi c'est c'est un peu compliqué. waaye da ngay jéem a essayer de voir des solutions bon mais je ne mais suis pas encore entré en contact avec lui. mais seen ministère yi ñoom am nañu ay ministère boo ko lié ci ñoom. mais ministère yi par exemple le premier livre là. Mm-hmm. mais je les offert ça. Tant j'étais au Maroc, dans un cabinet de consulting là-bas. Donc, j'ai fait, je, je, les ai envoyé ça. Euh, ils l'ont reçu. Même au niveau du gouvernement, le secrétaire général m'avait envoyé un kit de, de remerciements par rapport à ça. Mais l'Oldeul, il faut pas juste dire Ali c'est bien ce que vous faites mais il faut que vraiment ñu ñëw ñu jàpp ci mais pour la décharge par exemple de de ceux qui se trouvent au niveau du guichet unique moi j'ai été rencontrer le, le responsable du partenariat euh, voilà on a discuté et ils sont open par, par, par rapport à cette mais les choses traînent un peu vous mais fondamentalement daal euh, y a a y a du mais le retour war na gën a mën a am solo par rapport li nga xamante ni man moom laay consacré nii comme effort et comme sacrifice pour euh, pour mon pays waaw. Ah. que sur une dizaine d'années comme je l'ai dit tantôt euh, vraiment euh, on m'a rien payé donc euh, j'ai pour pouvoir mettre ça au point et je vous dis que des jeunes leaders très crédibles sont prêts ah ils sont prêts à bouger et et et, et c'est de la bonne crème quoi. waaw jàpp nañu ne c'est des rêves absolument je donne un exemple très concret par exemple au niveau de de Bambey. j'ai repéré quelque chose et ça m'a fait mal parce que le FIDA avait financé un projet un espace agricole sur 10 hectares amatul clôture et les gens ne parviennent plus à travailler là-bas vous voyez donc c'est d'une évidence mais vraiment euh, euh efférente et loolu pour le résoudre c'est très c'est très facile monter un business euh, plan bancable par rapport à ça les jeunes avec leur cabinet de consulting junior arc-bouté à, à, à mon expertise mais ils montent le dossier pour se faire pour pour se financer donc ce sont ces genres de choses dont je parle donc la seule chose actuellement bi bi reste dëggantaan mooy le politique développeur qui porte ça et je vous dis euh, Antoine mais dans six mois gis résultat yi du super concret mais est-ce que le fait que le problème mu financement bi aussi du porter problème parce que boo defee sa business plan def ko lépp boo paree da ngay obligé toog di xaar. mais non pour moi ça doit pas poser problème dès l'instant que le le le président de la République lui-même nous dit que la DER est ici pour ça. c'est pourquoi je vous dis que ce que j'ai écrit dans dans ces deux bouquins c'est que le citoyen bâtisseur il adopte la stratégie de la preuve. la stratégie de la preuve mooy lan mooy état nee na lii askan wi ko moom moi je vais tout faire pour que les projets soient bancables maintenant si les projets sont bancables on y va et que l'état ne finance pas je dis que il y a un problème et je prends le dossier je le donne à la citoyenneté sentinelle donc le positionnement complémentaire boobu moom laa am donc man quand je suis sur les, les les plateaux de télé je je ne parle pas de politique parce que j'ai un positionnement d'expert qui apporte une solution technique donc je m'en tiens à ça et après quand les choses se corsent il y a le relais de la citoyenneté sentinelle qui qui qui qui qui, qui fait son travail. Mm -hmm. on voit que si si ce livre bi yaa ngi demandé ñi nekk ci expert politique bi ñu am benn comportement euh, plus benn comportement. aide seen par seen comportement aide bu ñuy am si par rapport ak seen citoyen mais aussi nga leen di exhorter ñuy trouver solution bi mais comme ni nga koy waxee sànq est-ce que nekkul ku ci nekk bu amee waaram bu mu ciy def pour mu affaire mun a aboutir foo ku ci nekk am fu mu jéem cee jàpp boo xam nga à la base un politicien bu duggee ci langu politique bi c'est pour apporter des solutions loolu moo tax ñoom ñu fal leen que sa soit les députés que sa soit les maires que sa soit le président de la république lui-même dañ leen fi teg pour que ñu toppatoo euh, problème mu askan wi mais léegi su fekkente ni ñoom toppatoo ñu problème mu askan wi mais askan wi dina jóg wane boppam ça c'est aussi simple que ça parce dëkk bi ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk voilà xam nga moo tax man chaque fois loolu lay wax nii man ci wàllu politique ànduma ak kenn man maa ngi ànd ak ki ànd ak askan bi foofu la positionné wu pour indi si sama expertise mais un politicien dañ ko teg sa post boobu pour mu liggéeyal askan wi loolu moom mooy mission léegi nag su fekkente ni nag ah jalgati na euh, loolu nga xamante mooy mission ah dëkk bi ku nekk tu es tu es libre mais de t'exprimer par rapport a ça. Mm-hmm. Euh, ñuy gis. pour réaliser ses rêves yooyu noonu développement bi yaatu na léegi lii na mais yow exactement ban message ngay lancer par rapport ak ces ces différents acteurs yi nga xam ne ñoo composé société bi pour mun a am benn côté développement social bi mun a am benn njëriñ benn am benn impact ci ces jeunes la bo déjà man li may ñaan rek mooy jàmm am xam nga jàmm mooy base du lépp waaw tant qu'il y a pas li may wax lii lépp amul benn njariñ waaw ah, donc sur le plan politique ñoo ngi ñaan ñi nga xamante ni actuellement nii ils s'entendent pas jàmm mën a am waaw bu jàmm ñëwee ba noppi nag ñun ñëpp ku nekk la nga am ci ressources ci compétences financières euh, compétences en matière de de, de capacité et cetera nga indi ko boo ko indee man ce rôle de connecteur c'est ce positionnement que j'ai j'ai des jeunes très crédibles des problèmes j'en ai identifié pas mal yoo xamante ni rapidement on, on peut y aller ensemble mais encore une fois man je ne fais qu'impulser damay impulser ni gars ñi attention bu ñu defee nii yaakaar naa ni dina war a mën a baax kon yow mi Antoine actuellement nii dégg nga ko kon ça veut dire que tu es interpellé au même titre que moi parce que dëkk bi moom ma ko problème yi moomu ma ko mais c'est parce que jaaxal na ñëpp man na comme nga yàlla may na ma aslëf ci xam-xam ci loolu ma tayle sama bopp ni damay pour indi fi loo xamante ni dina mën a génn ci ndool mi parce que loolu moo tax ma ànd ak ñi nga xamante ni c'est les les migrants de retour et les candidats potentiels à la migration ñu mel ni ñoom Moustapha Gueye j'étais les voir les lutteurs parce que une fois que ñu kii dañuy démobiliser wu ñoom fu ñu jëm après mais yooyu yëpp c'est des solutions tout ça c'est des solutions et euh, ce qui est extraordinaire képp ku ñëw Afrique loolu ngay wax on a la terre on a l'eau on a on a et la main-d'œuvre également elle est là. Mhm, potentiel baa ngi fi. le potentiel est là. Mhm. le donc il suffit qu'il y des acteurs comme euh, qui essaient de réveiller certaines choses et bu boobaa nag après affaire yi euh, mën na jaar yoon Sénégal bi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo koy defarandoo waaw moo tax loolu lay incité man bokk ma ci benn parti politique waaw bien que bi ma nekkee Cambérène ba ba ba ñu sampañoo ba ma nekk fa président commission entrepreneuriat jeune entrepreneuriat féminin et coaching mais waa dëkk ba man ñoo ma ñoo ñoo ma coopté pour ma dugg ci liste bi waaw donc na ma fa duggee dama fa duggee en tant que euh, euh, élément de la société civile voilà donc vraiment man tëraayu njaaxaanaay la la la tëdd xam-xam bi ma yàlla may aslëf c'est disponible pour Sénégal et l'Afrique et même en ce qui concerne l'Afrique il y a des choses que j'ai commencé à impulser Par exemple, là, je suis en train de monter un projet avec des gens du côté du Bénin et du, et du Niger. Gambie aussi maa ngi fay liggéey ak ay partenaires yooyu yëpp ci ci ci domaine bi la jëm donc solution euh, euh solution existe na. ok bon monsieur Diop ñu ngi lay remercier boo amee par am loo ci bëgg a tàggatoo ak internet Sénégal yi. Ah, li may wax daal mooy que les jeunes surtout yéen lii nga xamante ne moom laa def le sacrifice c'est pour vous. waaw ah, donc boo gisee avant rek maa ngi doon liir au niveau de la Tunisie ñu tous on sait ce qui s'est passé il y jeunes qui voulaient aller il y encore des morts et ça ça nous fait mal donc ça veut dire que ñi nga xamante ni ñoo fay des ñooñu sunu ay doom lañu suñu ay jarbaat lañu léeg-léeg bu ñuy dem du leen yëg donc su fekkente ni yàlla may nañu euh, tuuti xam-xam ci loo xamante ni yaakaar nañ ni war nañ mën a ay monte ay projets yi lu leen di téye fii donc yéen je vous invite waaw moo tax vraiment ku euh, ñi ma jeune ñi may àndal ñu mel ni Ben Thiam Phoenix bon ñu ñëpp dama leen di remercier parce que Ben euh, keroog la ñëwoon ci ñoom si seen ci seen activité bi et fa laa xam euh, la mooy ces cinquante préférences nationales et j'ai vraiment apprécié ça donc il fait que vraiment genre combat yooyu c'est des combats à mener waaw parce que bépp société bu exister ba taxaw à la base on a protégé les industries naissantes. Partout au monde, non la Donc, nous nit qu'on protège nos choses on nous donnant un certain pourcentage des marchés publics. Lors dina tax yi fi yi fi gën a ñong mais vraiment dans les jeunes Euh, am leen positionnement de contributeur et venez avec moi nous allons voir comment on va travailler ensemble voilà donc c'est vraiment ce message très fort que je voulais lancer et dire aux politiques développeurs ñi bëgg dimbali dëgg ñu ñëw rejoindre euh, l'écosystème de la citoyenneté bâtisseuse et qu'on puisse tous travailler ensemble voilà mon dernier message. ok merci monsieur. je vous en prie merci.